mooy bi amul côté bu ñu jaar bu ñu jaarul pour bëgg ñii ko fi def dindi ko parce que adapté wul ak nun suñu dëkkuwaay ndax dafa nekk centrale bi nga xamante ne de catégorie un xam ne fépp fu mu nekk à distance su 500 mètres dara waru koo jege du nit du du du ndox du école du case de santé du dara te yàlla dafa nattu centrale bi si digg loolu yëpp si la nekk ñu def tey euh, benn action. muy am ñaari fan mu muy euh, euh, assemblée locale si énergie renouvelable ba nga xamantene Wa Woming muy ben alliance euh, organisation de femmes ba nga xamantene dañuy lutter contre les énergies fossiles xamné lepp lépp ci Afrique dañ fa installer yalla def ñu dugg ci Sénégal doon suñuy partenaire ñew may ñu defal ñu loolu ba nga xamantene ne am nañu deux jours diggante démb ba légui ñu ngi sottante xalaat si wax ba xam nan la ñuy def ba génn si problème mu centrale bi ndax li bari ñu engorgé muy li jëm si wàllu économie muy suñu économie locale bu ngeen séentoo géej ñaata gaal si léegi ñoo fi teer yaakaaruñu dara bari ñu yaakaaruñu dara ginnaaw géej suñu économie locale 70 pour cent yi ñu ngi koy jëlee si pêche bu ñu toogee tey ba sàggan ba sàggan sàgganuñu de ndax depuis 2009 am na ay sant ay ay ay sentinelle yoo xam ne ñu ngi jox di xeex si centrale bi lu ne dégg nañ ko lu ne wax nañ ñu ko taxe nañ ñu du lu ne. bañ bu ñun bu ñu sonnee ba waxatuñu sax dañ ñaan ñu doon wax noppi nañu parce que dañ leen ko corrompre ñoon duñu nuru ñak ñuy corrompre li ñu bëgg moy bar ñi taxaw ci nañ ci taxaw won demb ar barki demb depuis 2009 ñu taxaw ba tay ji tay lañ ci gëna mëna taxaw xana kañ da ngay dem ba say pexé jeex nga toga déllu wat gannaaw pour mieux sauter loolu mo andi won suñu tekkaaral waye central bi ba ilaa yombi di ba ñu di ko fi dindi chaque jour ko jëfé dañuy tok di ko xeex léegi nag yàlla dafa def ci xex bobu moy ñi lay yéena lu bon bokul ak ñi lay yéena lu bax buñ ne centrale question de centrale Mais mais centrale à charbon Nous ne bëgguñu ko Nous contrôlons le projet état mais la le centrale à charbon bëgguñu bien vrai que le gaz mais c'est trois fois moins polluant que le charbon pour que sax ñu alternative mais nous savons des loolu yëpp la la centrale bi liñ sa léegi ñi lay yénnu nu bon bokk la ak ñi lay yénnu bax am ay gor yu ñëwoon di dégglu suñu xéx biñu déggé na ne centrale ba am ngi fi ñu né pourtant ay plaque ay euh, numu mu tudd ay euh, euh, panneau solaire fan fo dem ci aduna kër yu ne dafa am euh, panneau solaire boo amulee courant boo xamante ne euh, euh, état moo la ko jox nga am sa courant bopp nga otonom ñu ne comme noonu la xam nañ ne jigéen yii fii dañu fiy liggéey sonn ba seen bakkan langa la fa nekk bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg ñu ne xanaa bëgguleen bëggu leen centrale mais ñun duñ ñu leen andi panneau solaire xam ne bu ngeen fi toogee ba guddi bu fekkee ne ku sa portable fay bu ñu ko taalee nga ñëw mën a charger sa portable bu fekkoonte ne tok nga tay ba yalla defone mu atane projecteur dañu si monter projecteur bu guddee bu fi nit ñi di liggéey mu taal projecteur ñu taal fi projecteur pour ñepp mën ci leerlu té lool kenn deful ñu ko lu moy wa Greenpeace ñi nu àndal bari na kenn ku neena wala wo man ñu ngi la kay dimbalé dimbalé ñu nak ben nit xaalis mais dañ lay dimbali ay stratégie yo xamné man nga ci jaar a fan ngay kan nga mëna dajel ko xamné man na wax fañuy waxé di waxé fañu koy mëna déggé ñu jappalé la ci loolu loolu moy suñu coono nun fii si biir Bargny mais ginnaaw loolu lan leen taxu noo ba fi centrale bi jógoon tey ñu xam ne waa Bargny la ñu dogu woon si ne du fi am te da loolu la ñu ñaan yàlla nuy maam nuy nuy baa yi nu fi fekkoon ne ay kilifa diine dogu woon nañu ne si centrale bi du fi am nuy maam parce que da képp lébu la nu ne dañu am cosaan in am aada lépp loo xamante ne centrale bi nit war na si dox rek dem nañ si cosaan dem nañu si aada fu ne dem nañu fa lan dem nañu ba suñuy xamba yi nga xamante ne ah suñuy li suñuy rab yi nga xam ne moom la ñu yaakaar ñoom dem nañu si delluwaat gannaaw di jaar si suuf pour man xam ne am nañu seeni problème pour man see dugg pour xam ne ba centrale bi am na lu ko téye suñu xeex nag du jeex. dañ naan xëy xam njaago du jeex waaye xëy xam bu du jeex bii dañu ko continuer ba mu jeex lii nii waa Greenpeace moo ko andi pour xel kom yi fa sàmb moomu ko ma sàmb moomu ko ma dem moomu ko te ñëw fekkal ni si condition yu métti yi ñu nekkee moo war ñu andi lii pour ne nañ fay jëlee central à part à part charbon soleil soleil ngi fi dañuy am euh, janta juróom ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukk ak juróom yi xam ne moom la at di am toujours dañ koy am soleil nañu investir si soleil nañu investir si ngelaw li nga xamante ne day yàq soleil bi day yàq nañ si récupérer liñ mën a récupérer dañ jariñoo ko ngelaw li day yàq nañ si récupérer liñ mën a récupérer jariñoo ko te loolu mën naa changé si addina àddina charbon bi nga xam ne moom la ñu andi duñu ko tegal bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg nañ ñu gën si dugal si énergie renouvelable mais geste bi wane na lu bari geste bi wane na centrale rek du du loo xamante ne moo mën a andi énergie geste bi wane na ñun bëgguñu centrale bi tey bëgguñu centrale bi ëllëg

si biir suuf te jël énergie probe yi nga xamante ne mooy soleil bi di ko joxe ngelaw di ko joxe biogaz bi di ko joxe lépp biomasse bi lépp parce que façon énergie bari yi sans que autant nga jël charbon charbon baaxul suñu suñu baaxul suñu wërgu yaram day yàq suñu koom-koom bu fi bu ñu laa tuyee les femmes di xel kom yaa na ñoom ñu jëkk dee